cadre projet PICEP e bi nga xam ni ville de Pikine ak Guédiawaye ñu ngi koy développé mu nekk projet boo xam ne ni dafa am solo trop solo bi wax naa ko li nga xamné ni mom lañu wara def ay djégo yi ñu wara tek ak ay stratégies yi ñu wara dérouler pour mëna euh dund bu baax ak changement climatique yi parce que changement climatique daf fi nekk euh koy dund té dañu wara a dund ak mom mais waruñu rek subir ko dañu dispositions des matukaay euh, pour atténuer ce que vous mais également dund ak adapté en matière de euh, de lutte contre euh, les les changements climatiques Nous devons dund ak commencer pour nous former nit ñi nga xam ni ñom ñoy def ñoo composer ay décideurs lañu buñu paré engagement communautaire ñu mom pratiquement lolo tax sax ma ñëw fi pour wan euh, collectivité territoriale yi ne leen administration bi nga xam ne man ma nekk ci bopp bi fi au niveau du département ñun ñëpp ñi ngi seen ginnaaw and ak ñom di ci dans ce dans le cadre de ce projet là.